nañu fursa bo xamne man nañu wax ñeel yalla ak yonent bi en dañi de yindirde le ngandu da ko de sabu allah am nañu chance gise bo xam ay kanam xar kanam yo xam ne dañoo gisee te dañoo xar kanam yooyu dañoo bëggante te yalla tax o wi kanko do jeyaaɗo allah hono ceerno men o ceerno mouhamadoul mansour ba neɗo ma o haali heen fodde ko allah newni ceerno mouhamadoul mansour ba mu ngi fii dina ci wax loo xam ne loolu la soob yàlla o wi ne won noon goonga ko ɓe jinnaaɓe makko ndaxte dégg la ñoom ay way juram la ñu o wi kono ko kanko ɓurnoo soccondirde e wattan nguurndam ceerno moom ceerno mouhamadoul mansour moom moo gënoon a jegee ci mujjantelu dundu ceerno ahmad boyi naaji o witaaniraaɗo kadi ne ɓurata udditaneede geɗe keewɗe so tamit momo am chance ñu ubbil koko ce yef yu bari to bange yewtere ci wallu waxtaan o wi wa amma ceerno en kam so fekkee ñoom ceerno E kala ko taweɗa taweɗa e maɓɓe wonka a tawaka e maɓɓe lépp loo xam ne fekkngu ci ñoom am na loo xam ne fekke woo ko o wi kanko kam eɗen nganndirimo kanko ceerno kala kala makko ko wonde sunniyanke xam nañu ñoom ceerno lépp mbiram lépp lépp lépp doon aji sunna la ñu o wi haa teeñti noon ñeel tamit ya di jama moy dem ci jakk nga njuulo yaa jamaatu nga dem julli ci jakk ji waxtu ji di joyi waxtu juromi yep. so tawi ada nangi tijaniya jooɗoɗa e daira wazifa so fekke tijan nga nga tok ci daira wazifa o so tawi ada wurdiri e makko e on don sifa so fekke da nga dundak mom ci bobule anam omo weltanima omo cierno def dafa kontan ci yow te def la ñaanal ada yetti kadi ɓernde makko nde na nga xamne tamit agna na ci xolam mom cierno ag nga ci xolam ene anda kala be duwani be dum tan moƴƴini walla moƴƴinaani xamnañu mbollem julit ñom cierno dañ ko ko ñaanal nga baaxal wala nga baña baaxal kono mo mbiɗen o juuldowo e makko waktuji ɗi jooddo e makko daira wadifa taw kutidiani yanke o on ɓuuri heranade ngal gueɗal ko xamne waxnañ ko leegui mune ko xamne defay jullindo ak mom waxtu juroom yi mu toogak mom daira wadifa ɓuure tidiane nga yow ya gana am jagle bobule ñaan ci ceerno o winde o heddotori tiidde de manam bim dese ndegeral aya mom ceerno o yahani jama goo o yahani jama ɗiɗi kanko almudo o ceerno noddanmo mom talibé bi su fekke desene ndeger lay waye tamit demul eh, jakka julindo ak eh, mbolo mi ben wala ñaar ceerno daf lay wo su fekke amo ngant o on kanko ceerno mu wax lolu kanko ceerno o wiya on lu ɓuram nokkam o mi wax loolu koni abal ma samay sama sama makan sama kër mi wawa wondude e neɗɗo mo yahata jama munuma nekk ko xam ne du julli du dem julli ci jàkk ji o wiya joomum o yo yaa ƴeewa ɗo wonoyi mi wax nit boobu na dem xool fan la dëkk ji fan la ne fan lay nekk ma jomum tubana allah rewa hen ha nde o jaɓani ɗum foof ko kulele fayi ñaw tubal yalla mo topp ci ba ceerno nangul koko <laughs> o wiye neɗɗo o min ko on haaju tan rendini en wona rewede neɗɗo o rendini en man boobule yitte moñu boole dudefa fekk nga topp ci sama ginaaw loolu boole wuñu o wiya rewede hay mbir e naalankene keɓa ɗum mune ɓude topp seginaw min mbor bi ak waykat bi man nañ ko ko am kanko so tawi ƴiwonde ƴiwni ceerno bo asmane be xiine omo joorti wasata toɓo ara tawa newani am na njoorto ko ni ko neɓani omo jorti wasata toɓo ara tawa ko neɓani am na njoorto ni kadi manna taw fiyak dirbu gat te waktu o yettima te waktu ɓe ñawna o yahat o ɗuwoyo to jamato o nawara paray sewal makko defay dem ci jakka ji took fa xaar fa mu yobbale parasolam o wi meeɗi ñande wotere omo ummi jama kanko ceerno am na benn bis ceerno mu jogee ci jàkk ji mu ne oytaa nii ko o ceerno mohamadoul mansour ba oo jooɗii ɗo setam boo xam ne mooy ceerno mansour ba mii toog ceerno mansour ba ne rewi caggal makko ceerno mansour topp si ginnaawam o ari kanko ceerno haa o naati nder galle mu ñëw ba dugg ci biir kër gi hakkunde e galle rewɓe e galle worɓe ɓe ci diggante kër goo xam ne dañ ko xaaj ñaar bërëb boo xam ne jigéen ji ñoo fay nekk ak beneen bërëb boo xam ne góor ñi ñoo fay nekk mu ne ba si digg bi o ƴetti sawru makko balak maniru sawru makko tuggordu ndu o liggéey sakiraji he mu jël euh, yetam boobu moo xam ne moom la doon yor mu aj ko ci saket yi o wi ceerno mansour ba o jooɗiɗo tani ko wiimo mama ɗum ko woni ceerno mansour ba mi toog ne ko a ah, mam li lan la o wi kanko ceerno mi sikkanno e jettima jama dema fogon ni dañoo àgg ci jakka ji o wi kanko ceerno ala ceerno mansour wiimo ala ko galle gonɗe ɗe jettaki jama taw ceerno mansour ne ko aggaguñu ci jakka ji ñu ngi ci biir kër gi ko ko hodde toon o wii ɗum firti neɗɗo o ko ruuhu mum hodde toon loolu defay firnde kadi ko boobule nit ruuham ci jakka jilla dëkk wona sifaade mo jiɗɗen haalde wona sifaade mo jiɗɗen haalde o ala jiɗɗen ko hiljinde almudu makko yo won neɗɗo jama ala jiɗɗen ko hiljinde almudu makko yo won neɗɗo jama dañoo bëgg xiirtal ci talibiyam nanga doon nit boo xam ne da ngay ñemee jakk o wi ɗaccuga haymo wona almuudu makko même tamit bu koo xam ne nekkul taalibe ceerno dañ la bëgg a xiirtal pour nga doon koo xam ne da ngay julli ci jàkk hayde ka sunni yanke su Sunni kay sunnit li nga o wi wa amma koddigal su fekkee dëkkandoo o wi waawata ko haaleede duñ ko mën a wax duñu mën mana wax lépp lépp loo xam ne bëgg nañ koo wax ɗum foof ko ngannduɗaa eɗen jiɗi ɗum haalde ko o wii xalifa ɓe nan ɗo njooɗii ene poti salmodirde e, e dental ngal ene poti kadi yettinde calminaali to ngummii to mm, o wii ceerno men omo heewno wiide o wii ceerno dafa faral di wax ni jullit bu ñuy mboolo même su fekkee ñaari nit la ñu yoɓe ciftodir diine maɓɓe nañi fattaliku seeni diine o wi ɓe ngala ko fotodiri e diine o saka ko ɓuri ɗum e amuñu loo xam yemna manam tolo nak diine ji waxama loo xam ne moom moo diine ji e o wi yo en toppito koddigal men hakkunde men e allah nañu wattu suñu dekkandoo suñu diggante ak suñu borom koddigal men hakkunde men e tagore allah toppitoɗen koddigal men hakkunde men e allah e tagore allah ñu wattu suñu diggante suñu dëkkandoo ak suñu diggante ñun suñu ñun suñu boppo o wi dema noon e heeraade hakkunde ma e julɗo o wi nde won koddigal ma e allah dafa fakkeni sa dëkkandoo ak sa borom koto yamirore makko ɗo dekkudu ak sa borom ci ndigleem moom suñu borom ci ñun wi kono koddigal ma e tagore ne wawi sa dekkudu ak mbindeef yi juulɗo heen emo wona juulɗo jullit ak goo xam ne du jullit hakke hakunde mondo, dafa fekk ak bu nekk seen diggante yow ak o wi ndentoɗa ɗon allah nga wattu foofu ci sa borom nde won noon kala ko haɗa ɗon ko kanko haɗi nde o fekke ni lépp loo xam ne tere nañ ko foof moom yallah moo ko tere kala ko yamira ɗon ne kadi kanko yamiri lépp loo xam ne digle nañ ko foofu moom yallah moo ko digal o wi en jañota ko du ñu yaatal jooni ko e toɓɓere bangue ɓesnguuji ɓesnguuji ɗi yoɓe toppito ɗooftade allah ɓe toppito ne kadi jamirooje jinnaaɓe maɓɓe o wii njaboti nañu e, fonku seeni jaamuyallah wayata min ñu fonku seeni ndigalu wayjur o wi ɗum ko yamiroore allah loolu digalu suñu borom la o wii so tawi a rewi allah aɗo oftaaki jinnaaɓe ma so bo fekke ndinga jaamu yallah waawi toppo o ndigalu wayjur o wi ko ndewɗa allah ko allah ala hen haaju boobu jaamu yalla yalla yittewu ko sohluwu ko seyidina cheikh tidiane radiallahu taala anhu o habri o wi so tawi neɗɗo ko juulɗo no sifori fof o wi seydina cheikh radiallahu anhu wax nañu neene su fekkee nit kii jullit la lépp noo manti mel hay sinno o anndaaka ɗo ummi hay so asli makko anndaaka ene moƴƴi walla moƴƴaani même so fekkee xamuñu fan la jogee xamuñu fi mu cosaano baax naam baaxul o wi so tawii tan koo julɗo so fekkee rek jullit la soo nanngii laawol ngol seydi cheikh tidiane wi ma defo mo janngo yawmal qiyamati cheikh tidiane neene foo manti bawoo foo manti cosaanoo nga nek julit ab ko julit waye ñew nga nga moy ci tariqa sheikh sheikh tidiane neena dina la fagul ulq yawmal qiyamati o wi non gaaji do jinnaado mum o wi wat nangulaawol mako tariqa bi nak kep ko xamne tepp wo sa ndigal wayjur jur bul bul ci tariqa sheikh bu ko bu ko jël en gandi kay wadde ala musiba gardo dum dow waaye it xam nañu amul benn musiba benn bépp ay boo xam ne feet na ay boobu kaw o wi aaƴaade jinnaaɓe hay so a hoddiniima waliyaaɓe a hoddiniima annabaaɓe alaa ko nafata boo toppul ndigalu wayjur même soo fekkee da nga ànd ak ay waliyu walla nga ànd ak ay yonent du la jëriñ dara way no kono maadi ndi alaa ngooroondi nii dafa nu roog tabax boo xam ne amul fondement yoo allah jogi to pitaali ɗi yalla ñu yalla teyel suñu suñuy ruux suñu xol nde wonno ko kanko woni peewnowo ko kanko woni moƴƴinowo yalla mooy defar yalla mooy baaxal allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim o wi ceerno mansour yo jokkani hen hen no fotiri fof ceerno mansour abdoul ko e yamirore seeremɓe ɓe noon